العلي من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد نحييكم بتحية الإسلامية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu delluwaatee sant yàlla ci mbaaxam ci kàttanam ci yërmandeem sant ko sant bu wér wér ci làmmiñ waaye nag mu jóge ci xol bi di ñaan yàlla borom subhaanahu wa yàlla na suñuy làmmiñ ak suñuy xel suñuy xalaat ñu di ko sant di julli ci seydina muhammad ñi nga xam ne mooy xaatimu nabiyiina wa imaamul mursaliin di yaakaar tey ëllëg di rek mu def ñuy bokk ci njabootu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane waaye buum bi ñu am ma jëm nañ ko Cheikh yal di leen nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ñaanal kilifa réew mi di di président Macky Sall ak mbooleem ñu ne ci moo xam les pouvoirs moo xam l'opposant moo xam société civile moo xam ku mën a doon yal na yàlla defal la jàmm àdduna defal la jàmm àllaaxira yàlla yàlla def ci réew jàmm waaye di nuyu kilifa xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di suñu sëriñ di ko ñaan yàlla atala amruhu wa ayadahu nasara di ko ñaanal yal na yàlla taxaw ko yal na yàlla ko yal na yàlla sàmm ko ci dal gi ci maandu gi ci noppi gi ci xam yàlla gi yal na yàlla taxaw ko noonu la ñuy nuyoo sëñ Muntaxa xalifa général des Mourides ci maandu gi ci yar gi ci mën a reetaan gi ci sell gi ci mën a joxe ji ci ragal yàlla gi lépp yal yàlla sàmm ko yàlla guddal fanam noonu lañuy nuyoo Cheikh Bekay Bekay Kounta xalifa xadriya fële ca di ko ñaan moom di am ñaan taxaw ko noonu la ñuy nuyoo xalifa général Thiénaba noonu la ñuy nuyoo xalifa général Medina Baye Léona Niassène kër maam Limaamu Laay bàyyiwuñu kenn ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi baalu àq ñëpp di ñaanal ñoom ñëpp ñu ñaanal réew mi réew mi am jàmm. ndax jàmm ci la lépp xat fa tabarakallahu di ziyaara waa di baraax di wax ne rek fa tabarakallahu tiyaawanu tiyaawanu yàlla la waaw tiyaawanu moom tiyaawanu yàlla te am na wax yoo xam moom wax dëgg yàlla jarul a tontu waaw ndax ci benn bi génn ñu ne ginaar ko nen ah kon boo déggee nit naan ay ginaaru kenn la noonu yaakaar naa loolu wax bu yàqu la loolu moom nit woon sax tontu waaw kuy nitee du waroo seen tontu ndax bu fekkoon sax ginaar dafa mës nit nit waaw ñu mën a tontu ci loolu ñu ne waaye ci kii ci li génne waaye fii ci àdduna wala ku ko gis boobu dama ko wax waaw nit dox ñu ne kii ginaar ginaar ginaaram moo ko nen ba mu génn ci kon bu nit naan taxaw naan ay ginaaru kenn nanu yaakaar naa li seen cheikh rek. yoo xam ne boo ko yëkkatee sa loxo wax ko rek di nga sa bopp mu mel ni kon yooyu jarul tontu moom wax dëgg yàlla ñi ci ànd xam nga moom wax dëgg yàlla nit moom ci waaw na lay jafal ba nga la ba nga rafet jox am na baat yoo xam ne moom nit warul ci tontu ay ginnaaw kenn nanu waat yooyu yaakaar naa waxut li si laaj maa la waxoon rek waaw ah, Muhammad naan dañ koy wéccee ak ay ñu bare bare pour ñu jox leen rasulullah ñu rey ko rajo Maram ah, am na yoo xam ne moom bu ko nit di wax ci xelam di ko sàkk dem ca marché wala ne ma jaay ne la gëléem kooku dañ ko war a yedd waaw kon ku taxaw naa ginnaaw kenn lanu ma kooku kooku yedd nga rek am ci moom waaye tontu amul ci moom kon fa tabaraka allahu yàlla dam yal na yàlla def ci réew mi jàmm ci mag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun kon tey seen buntu ñi nga xam ñu ñooy waral sangu farata waaw ñi nga xam ñu ñooy waral sangu farata sangu farata nag borom téere yi nee na ñett ñii ñoo koy waral waaw yaakaar naa nit boo dee luy génn si gémmiñ du ànd dina déglu war nga wax ni jëriñ doomu aadama waaye wala wax loo xam ne dañ ciy wutal sa bopp noonu te xamul yaa ngi wutal sa bopp noonu. Sëriñ Maodo waxoon nga innaka laa tadri bi annaka laa tadri wa innaka laa tadri waaw ah, ah. waaw jàng nga téere yi ba mu jeex teewulaa doon jaahil ñu ne nit Bamba Tuubaa wax na ko ñu ne ko lan moo lan moo lay tere doon jaahil mu ne nga ñàkk yar ak teggin waaw ah, kooku mooy jaahil dëgg waaw loolu Bamba Tuubaa wax kon fa tabaaraka Allaahu Sëriñ Maodo ne nit du xam ne xamul. ñi ko wër xam nañ ne xamul te duñ ko wax xamul xamul moom ci boppam xamul ne xamul te xamul ne xamul kon fa tabarakallahu yéen ngi yàlla mu ne sangu ay sangu sangu dem jël saabo njàmpeeg rakk serew farata pour nga mën a set àgg ci kër yàlla mu ne ñett yi ñoo koy waral yi nga xam ni mooy tax nga war a mën a sangu bu la neexee de mën ngaa jéggee saar nga sangu noonu rek pour gaabalaat sa bopp waaw ndax mun a yëg bu dama al aslu sangu min salaasati ashyaa ci ñetti yëf yi ñetti mbir yi mooy waral nit sangu sangu farat wala la ñuy yàq xam ne naan sangu janaaba ñii di wax naan sangu set waaye yëpp tur ñoo wute rek waaye ñoo bokk ak yéene yi tabaraka ba bi ci jiitu mooy al janaabatu mooy janaaba janaaba nag buñ ko waxee mooy ki nga xam ne wa tabaraka allahu mu koy jàngal ci muy téere def na rapport sexuel ak kim ko war a defal ah, moo xam nit la moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam ko feebar la moo xam daal jël na pëy jël na zakkaram mooy awra bu góor daf ko ci beneen awra boo xam ni wute naag bosam mu ne kooku mooy janaba bi ci ñaareel mu ne war xay ni ak mbërëg mbërëg nag bu ñu ko waxee mooy règle mooy xale jigéen yi gis à l'âge de quinze à seize ans jëm dix-sept ans dix-huit ans boo ko gisee nan bu ñëwee après téere bi dana ko jàngal mooy gis mbaax waaw mooy nga xam ne bu ñu gisee ñoom yenn saa yi en général bu koy gis sax dañuy feebar ni seen biir di métti waaw kon wala xëy na ak mbërëb wan ne faase ak deretu wasin mooy deretu gësin ki nga xam ne dafa am doom bi mu amee doom ba pare nan la bu bu ndox mi jeexee ndox moomu di génn ci moom après. kooku tamit war na sangu mu ne ñett ñi daal ñoo waral sangu farata wala mu ne ay jumla alxutu sangu min salaasi asiyaa yi ñetti ñii aljanaabatu mooy janaaba mooy def rapport sexuel wal xayd mooy li xale jigéen yi gis muy régal wan ni faasi ak dërëtu wasin muy dërëtu gisin mu ne far janaaba du janaaba ne ñaari xaaj la mu ne janaaba am na ñaari parti ñaari parti xismaa ne am na ñaari xaaj mu ne ahaduhuma benn si ñoom ñaar xurujal mani mooy génnee mani bi lazatin ci bànneex moom taadatin bëri bu ñu baaxoo fii noomin ci nelaw aw yaqzatin wala nga ñàkk nelaw bi jimaain ci sëy aw xëyri wala niru sëy boo déggee tax mun la janabu ñaari xaaj la dafa ne benn bi mën nga ko def nii te nelawoo di sëy wala ngay bànneexu wala nga jël sa zakara nga xam ne jël seen zakara di ko di ko moxoñ di ko moxoñ ba ndox moomu génn ndox moomu di génn bokk man yi ñu wax waaye waxuñu la waxuñu masu waxuñu wadu yi man yi la ñu génnee waaw boo xam jigéen bi ba nga yeewoo tooy nee na da ngay sangu ci waaw boobu nee na ba nga génnee sa mu ne xurujan mani nga génnee mani bi lazatin ci bànneex muxtaaratin ba bu ñu baaxoo moo xam fii naw min ci nelaw la aw yaqzatin wala nga ñàkk nelaw moo xam ne da ngaa gént di ko def ba mu génn wala nga ñàkk di xalaat ba mu génn wala nga wala ngay def sa yooyu ngay def say say waaw bi jimaa moo xam sëy moo xam nga doon sëy ki ngay sëy aw xayri wala lu niroog loolu mu ne wasaani ñaare ba nag xam nga boo génn mu ne nag wasaanaw ñaari nag mu xiiba xasafatin mooy nga jël sa bopp zakara mooy sa bopp awra fil farji nga def ko ci pëy mooy ci euh, moo mooy ci euh, euh, mooy ci awra ku jigéen ki waaw wala awra yi lu lu lu lu lu mën a doon rek waaw ndax boo jëlee tey boo jëlee sa awra def ko ci lu mën a doon loo xam ne du du du nelaw kooku da ngay sangu ci waaw moo xam nga ngay séq ak ku jigéen ki te génne woo te génne te génne woo maniyu wala ngay séq ak góor te génne woo maniyu wala xar wala fas wala mbaam wala lu mu mën a doon ngay séeg moom te génne woo maniyu nee na da ngay sangu ji waaw maanaam ne ñaar la bii da ngaa ba mu génn da ngay sangu ji waaye bii def na génnul doo sangu ji waaw maanaam mu ne man la ku gént fii manaami ci ay nelawam ka annahu ni ko wi jaami ma ngay sëy wala mu yaxlu te génnewul minu ci moom maniyu maniyu fala shay'a den dara alayhi du ko ci wax man nag damaa gént wala sàmm gént di sëy xale bu jigéen bi ba mu yeew wala tubayam taxul dara ne na kooku du sangu si waaw waaw damaa nga gént nga tëdd ak xale bu jigéen bi bi nga yeew nga gént ni man kat doon naa sëy ci biir gént gi waaye li ma yeewoo sama tubay tooyul taxul dara naan dama sangu ci waaye nag boo yeewoo nag fekk mu taq nag ci li ci taqalee di mën yu wala mu tooy li ci tooy di mën yu nee na da ngay sangu ci waaw ba xam war a aada ku gént fii manaamee ci ay nelawam mooy ku gis rek fii manaamee ci ay nelawam ka annahu ni ki moom yu jaami ma ngay sëy wala mu yaxlu te génnul minu ci moom mën yu mën yu fala shay'a dara alayhi du ko ci wax mu ne woon wajara nag ku fekk fii saw bi ci yërëm man yan man ya yaabisan woowu te laa yadri xamul matta asaabu kañ la ca nekkoon na sangu wa aada mu baamu maa salla lu mu julli woon min aaxiri nawmati ci mujjub nelaw naamaha yoo xam ne nelaw woon na ko nelaw woon na ko fii ci yére bi nee na damaa jéggi saa ma jël sama yére bi ma xool gis mu taq ma ma xool sama tuba gis mu taq nee naa xalaat ni yére kañ laa ko mujjee woon bu dee tey mercredi la ma xalaat mardi xalaat lundi xalaat nga baamu maasallaa la nga julli woon min aaxiri noomatin ci mujjub nelaw naamaar yoo xam ne nelawoon na ko fii ci moom kon fa tabaarakallahu li ñu teel la woon ci waxtu ci seen bindu tey jii di jégalu nag di jégalu war yaa di leen jégalu ci ñaari semaines yi nga xam ne defuñu ko émission ak yéen fa tabarakallahu yàlla bi ñoo xaw a sutante ñu xaw a feebar lool lool waa yàlla may nañu tal yàlla may nañu wér yàlla yàlla doolu wér bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla mu jàmm am tabarakallahu di waxaat rek sama mbokki taalibe yi ñi nga xam tabarakallahu teewoon lañuy lañuy am na wax yoo xam ne jarul tontu waaw nit ki boo moom bul nangu di moom loolu la suñu sëriñ daan wax sëriñ Abdou Aziz Al Amin waaw te wax dana nit ki lu ne sa dënn loo ko nëbb nëbb nëbb nëbb nëbb bis dinañ xëy ñëw nga génnee te boo koy génnee doo ko tey loolu rek mooy feeñ fa tabarakallahu te ndox nag te nag bool bu feesee dafay daal di tuuru rek Tiwaawan nag Tiwaawan yàlla la ku leen bëgg yàlla bëgg na leen ku leen bañ tamit yàlla bëgg na leen kon nag booy bëgg bëggal ki yàlla bëgg fa ak ay rakkam ak ay doomam ak ay sëtam ak ay jarbaatam yàlla yàlla doon leen taxawu yàlla yàlla leen sàmm kër seen xaaj Malick yàlla la sant yàlla nag lu ne lañ koy wax teewul mu ngi mi ngi joxe teraangam que si rajo Malick noonu lañ mën ndax jikko yàlla rek lañ yor waaw yàlla ngi def ñu defal teraanga ñu ngi def lu ko neex inna insaana rabbihi lakanuun ala wa inna ala zalika la shahiidun lara war lu ko saaka Tiwaawan ba xas Tiwaawan wax Tiwaawan yéen a ngi dégg ko rek wa innahu lahu xayla shadiid waaw koom-koom yeeg gërëm-gërëm yi ndax ku ci ñëw Tiwaawan ku ñu dégg ba loolu la yàlla dogal fa tabaraka allahu yàlla yàlla sàmm yenn yàlla dëgëral ñu bañ a tontu yenn wax yi yenn wax yi kenn da ngay ci xam-xam waaye doo ci nu ci nu mu mel boobaa yi ñaan ngeen yem seen cheikh boo bëggee woon ni mbaam ko mel mbaa yéen mbaam yi day gën a yàlla jàmm yenn yàlla dëgëral ñëpp yenn yàlla taxawu ñëpp duñu daaneel nag duñu nuyu suñu sëriñ Mame Khalifa Ababacar Sall di di doom ci maam wax si di sët ci sëriñ si di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal faram du daan mukk te duñu suñu suñu sëriñ boobu sëriñ moom Ousmane Sy Dabakh di ko ñaan yàlla yàlla guddal faram sëriñ Mouhamadou Moustapha mu sëriñ Abbas Al Amin responsable muqtafina fii asari abaay wal ajdaadi duñu daan mukk te duñu nuyu di nuyu nag suñu boobu rawatina sëriñ Abdou Karim Mbacké borom makaarim axlaaq waaye duñu fàttali ne sëriñ Cheikh Oumy Mbacké mu sëriñ Fallou di ki nga xam ne moom mooy kilifa jiwriñu kër gi di sëriñ Sam di ko ñaan yal na yàlla doole taxaw ko yal na yàlla doole dëgëral ko di nuyu sàmm mi réalisé émission bi bàyyiwuma kenn fàttewuma kenn képp koo xam ni tudduma la ci ci gémmiñ rek waaye tudd naa la sama biir xol du ma fàttali nag famille Moussa yëpp di ko teg nag ci loxo Thierno ak mboolem waa kër Diarra Diarra nuyu naa leen ziyaare naa leen ñaanal sama na yàlla gën a guddal fanam ñaanal tabarakallahu sama papa jooju waaye papa Dramé sama papa jooju. Umar Pouy sama papa jooju papa Imam Gueye yéen a yàlla doole taxawu leen yéen a yàlla doole dëgëral leen yéen a yàlla doole sàmm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa